nan def benn combat bu mag a mag a mag a mag incha allahu rabbi jërëjëf a woo Sénégal di ne mooy sama patron di sama lépp wax dëgg yàlla muy Kandji production ñoo ngi koy woo di ko ci a teel a ñëw a a a ñëw du ko yow sama xarit waay sa mbokk yi nga bëgg a toog ci plateau bi bu ñëwee na na na toog rek maa ngi lay nuyu waa ñu lay fay yow yaay Euh, man maa tudd Moussa Ndiaye nekk président CDG lutte bu Bambey. waaw góore waay Moussa Ndiaye. waaw ana waa Bambey. Bambey ñëpp ñu fa. naka lambi Bambey. Euh, macha allah euh, lambi Bambey mu ngi avancé bu baax a baax a baax a baax. macha allah di am mbégte nag tey di jàppale si Petit nga xam ne doomu Bawol la di sant waa Bambey yëpp. Ah. ndax tey bu ñu nekkee fii. Petit bu tawee tey ba yàlla def tey. jërëjëf jërëjëf toogal arbitre sifflé na grand combat bi arbitre sifflé na grand combat bi naara ngay arrière moo njaay directeur Serigne mat leen maa ngi lay nuyu bu baax naara ngay arrière naara na ba génn saako yi naar loolu baaxul waaw day jël avertissement naar expérience bi nga am ci lamb naar expérience bi nga am naar naar sa xaalis waroo koo yàq ci lii ah, naar naar naar lii mooy lan naar avertissement ah man ah, du ma nangu ñu jël sama xaalis. vraiment. waaye maa waa groupe Lutte TV yëpp ñu ngi leen di bëgg. di ñëw Lutte TV yëpp di am contentement ci ñoom. tuuti ay Sarr. di bëgg ci ñoom bu baax a baax a baax a baax. Serigne Ndiour l'infatigable Mame Balla Gaye waaye le roi des arènes Balla Gaye ñu ngi koy nuyu. waaw kooku nag kenn du moom. di nuyu Tafatine. Eh, Lamine ñaar ñooñu ñoom ñëpp ay nitu làmb lañu Tafatine ak Balla Gaye 2. waaw Tafatine. ñoom ñëpp daay nañu génn réew mi di wuti kàttan di nuyu Baba Babacar Kor Ndiak. Babacar. waaye ñaari mbër yaa ngi lee waatoo ku ci nekk ngemb bu weex. waaw da ba dañuy xaarante de. arbitre baa ngi wax ak ñoom ku ci bu weex nga ngemboo. baa ngi wax ak ñoom. Siteu bu Ngor. moom ngeen jàkkaar lool noonu. waaw Siteu bu Ngor dañ ko ne xaaral naar. ndax daan boo koy xool xam màgg na nag. màgg na mais xam nga tamit naar booy bëree moom doo ko xaar. kuy ànd ak Reug Reug. waaw. wallaay boo nangu entraînement di nga di nga di am doole. ah Reug Reug de moom entraînement rek la xam. dëgg dëgg. Reug moom xamul leneen lu dul entraîné. naaru Sogas ak Siteu bu Ngor. ñu ngi léewtoo rek. ñoo ngi leewaatoo fii ci arène nationale. waaw Siteu bu ngoom dafa xaw a téye boppam di xaar naar yemook dimanche 18 février 2024 waaw dafa xaar day xaar naar de alaaji Nganjaañ ñu ngi ko nuyu bu baax a baax alaaji Nganjaañ moo koy wax passé visite ah moo daan wax passé visite waaw wax na dëgg de diwo bu garaaw la amoon moom ak garmi waaw moo garmi mbay ndeysaan ci RFM boo ne ko diw ak diw ku daan mu ko ñu lëng ko mu ne ko mu lëng ñu lëng ko mu ñibbi <laughs> ndeysaan boo ne ko fourrière ak ki nga xamante ni moom mooy caatu jolof mu ni muñ alaaji termine ko ñu lëng caatu jolof mu ñibbi ndeysaan waaye ñaar ñi kan lañ ciy lëng mu ñibbi père palama jam ah loolu nag dans quelques instants lañ koy xam parce que ñoom ñaar dañoo entamé combat bi ba pare ku ne respecté nga sa morom waaw amul différence euh, seen diggante amul différence de taille amul différence de poids waaye day waaw naar sogaas est-ce que xam nga ni day jël tànk waaw naar hee hee booy bambara ku weddi laajal Yanda. ku weddi laajal Lac Rose. ku weddi laajal ah, xale ba ne ca Amérique. waaw waaw. xoolal Max Max Gueye Max Gueye nee na ma waxal Balla Gaye ancien roi des arènes. waaw Balla Gaye ancien roi des arènes la kay. waaw waaye xam nga mën nañ ko woowee roi. waaw mën nañu woowee Mohamed Ndao Tyson roi. waaw waaw ah, waaw waaw. ndax li Père Max Mbargane di wax rek nee na Yékini bi mu fi nekkee kenn ñemewu ko moom moo ko ñeme de. wax na dëgg de. nee nañ ma ko jox. et puis man roi man dama contre ñu ni nekkatoo roi. boo nekkatu roi looy doon. waaye kenn du Mouhamed Ndao Tyson. kenn du Mouhamed Ndao ko ah kooku nag mooy ki def carrière am ba mu jeex lépp rafet. tooñul kenn toowul ak kenn du tontu ay détails. déedéet. fulla ak fayda. liggéey ñibbi këram guddi guddi pikin. kooku loolu la def révolutionné lamb. kooku jële ko ci ay 8 millions yóbbu ko ci 100 millions. waaw indi sponsor yi ubbi stade yi. indi génération bul faale. bu jëf bare moom la waaye bu wax bu wax. bare du moom la ilaha kooku. kooku amul dara loo xamante ni ci carrière am. wallaahi ah, da koo fowe lépp da ko exploité. lépp da ko exploité ah, naaru sogaas ba pare nag li ci gën a neex. du tontu du tontu détail. déedéet tibb na suuf moom Siteu bu Ngor. Ah, Siteu bu Ngor nag dafa jël combat bi yan ko naar. a ah, waru ko koo yéen nag moom miy xale. noo tax naar sorti boobu mu def léegi baaxul ci moom. la non lamb ji daa sañuy jeexee ak sorti boobu. ah day na war de. waaw Serigne Ndiaye aussi war naa mën a bëriwaat bëri na décembre. ah ah. digganteem ak ki nga xamante ne ah, ah, avertir. ah oui da lay avertir. ah non non non. ah lan la def dafa avertir naar te Siteu moo arrière ba ca saaku ya est-ce que naar daf ko avertir avertir Siteu da ah, ko boole ah da leen ko boole loolu yi nanguwul yi dañ ko won ni ko dul du yoon Siteu bu ngor naaru sogaas waaw Siteu nag tey ji ah, ah, dafa taxaw xaar rek de waaw suba yaakaar naa ci lënd bi yaa ngi ci yaa ngi fii CNG. waaw ah, suba. xam nga keroog dafa am lu ñu dige woon ñu ni. waaw tous les lundis dañuy tase fii pour xam li xew. mardi mardi. waaye mardi moo gën dama ko xalaataat. waaw parce que mardi ci ngay xam li xew yëpp. mardi ci la ñuy dagg mbër yi ci la ñuy sanctionné. ndax keroog Assane dana ma tudde ko. waaw euh, lundi mag. waaw. waaye lundi bi du baax ndax lundi. waaw duñ xam ñi ñu dagg duñ xam ñi ñu aj. waaw mardi lañ koy tudde Cheikh Gadiaga Cheikh Gadiaga ñu ngi nuyu ah combat bi tokkaas na ko ah naar tokkaas na Siteu dafa mel ni bëggul jàppante bi dafa bëgg a ah, jàppante bi de bu ko defut du sotti bëggu ko jàppante te xeexoo moom du sotti ah bëggu ko de da jàppante nag Siteu bu ngor Siteu bu ngor mbërum boos boos bu Siteu mbërum olympique club ñu ngi léewtoo léewtoo bu dib waaw param de parang war naa bëre combat fi ñu ko yaakaaroon ak fi mi ngi ñuy bëgg a jaaxal waaye le 9 mars bu leen ko fàtte dalay song song na ko song na ko da koy tóor hyperkit ma ngay tóor ca suuf Siteu bu Ngor Naaru nañu jàppante nañu jàppante nañu Siteu téye na naar Siteu téye na naar Siteu ngi bëre mu ngi koy wéyale fàqat na ko wër na ko ndombo déedéet jéem a la daan day génn Siteu bu Ngor Naaru Sogas ma koy daan wala du ko daan penalty penalty day génn wala du génn arbitre atte na lu xew arbitre atte na lu xew daan na ko waaw waaw Siteu bu Ngor daan na ko daan na ko waaw daan bu Ngor daan na Naaru Sogas boos am daan na ko waaw boos bu Siteu bu Ngor sa mbër daan na mbërëm daan na ndeysaan daan na ko daan na ko daan na ko mais Naar Sogas. yaakaar naa démérité wul bëre na de. yaakaar naa ne fii la toll ci lamb may xale yi sens waaw bëre na toll may xale yi sens. Naar bëre na li mu war a bëre yëpp def na ko. li nga waroon a def ci lamb daanaka lépp def nga ko. li mu waroon def def na ko. li nga toll nag mooy may xale yi sens. waaw waaw. ndax yax yu Diop Yékini bul ko fàtte. waaw. Balla Gaye la bëreel. waaw 22 avril 2012. 2012 Balla Gaye taan ko. Balla Gaye daan bu bëree ak Lac de Guiers 16 juillet. waaw 2016. waaw. Lac de Guiers daan ko mu bàyyi lamb. Lac de Guiers daan mu bàyyi lamb. Moustapha Gueye noonu. Moustapha noonu. 1er mars 2009. waaw ki la bëreel woon ak ki nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers Lac de ko. Lac de Guiers mu ñëw mois de mai. bëre ak ki nga xamante ni moom mooy Balla Gaye le 3 mai. le 3 mai Balla Gaye daan ko. Balla Gaye daan ko. foofu la jaare bàyyi lamb. foofu la jaare bàyyi. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. moom jàmp waaw. depuis Paris la France. depuis Paris la France. waaye le 9 mars dinañ ñëwaat fii ci diggante. tan ci diggante Feugeleu bu Ngor ak ki nga xamante ne moom mooy jeex jàmm. Feugeleu bu Ngor ak jeex jàmm. loolu làmb la. waaye ah, ñu ngi toog ak waa Bambey. nga ñëwaat nga ne yow yaay. man maay Moussa Ndiaye. waaw euh, ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di wax rek ne Bawol amatina ndam. Euh, di nuyu petit bi euh, nga xamante ne tey moo.